dal leen ak jàmm mbokk internet yi ab crise financière bu métti moom moo dal waa groupe GFM ba soo moytuwul jamono ji nii lu bari ci ay liggéeykat yu nekk foofu dañ leen dàq gafaga groupe Futurs Médias mel na ni dafa jëm ci ndërmeelu donte feeñul ca xar kanamu ña fa ne këru taskatu xibaar bi nga xamante ne Youssou Ndour mooy borom mel na ni jamono ji nii mi ngi nekk ci ay guddi wala ci lëndëm lëndëm yooyu lee jafe-jafe narul jur bànneex ci ñenn ci ña nga xamante ne ña nga fa di liggéey jafe-jafe koom-koom yooyu lee sànq liggéey ba daal di fas a gën a ñoŋal liggéey ba bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot yooyu la jafe-jafe yi koppar yoo xamante ne ma nga am foofule ca groupe Futur Media bokk na ca la ko indi mooy la ñuy am matewul ngir mën a fay ñëpp ñi nga xamante ne ña nga fa nekk di liggéey loolu waral ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot ne ñu bari ñoo xamante ne ña nga liggéeyee ca foofule danañ leen yóbbu ca chômage technique ci lu yàggul dara ci ma lu ëpp téeméer dana ca bokk yooyu leen ndogal nag mu nga tukkee ca plan de relance bi nga xamante ne kàngam yi ñoom ñoo ko na yooyu le kàngam dañoo jàpp ci seen seetlu ne jafe-jafe yi nga xamante ne groupe Futur Média mi ngi koy dund dara waralu ko lu dul ne ña fay liggéeyee dañoo bari lool ànd ak loolu boroom kër ga di Youssou Ndour la mu dugal ci xaalis ca lee groupe Futur Média daanaka jéggi na dayo lool ci juróomi at yi waaye taxul benn yoon lañ ca bëggoon am ndax seen càkkuteef ci yooyu le investissement mujj cee am lañ ca doon séentu yooyu maanaam kuréelu kàngam yi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal groupe Futurs Médias dañoo jégbal xalaat ngir jubbanteek ñoŋo yooyu la rëq-rëq bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot nag seen yéene jamono ji mooy wàññi ña nga xamante ne ñoo fa ne di liggéey toll ci la ëpp junne yi doomu aadama bu ñu sukkandikoo ci boobu limu liggéeykat bu takku lool mën nañu wax ne ci wàllu tas xibaar këru liggéeyukaay boobu mooy bi gën a mag ci biir réew mi waaye teewul benn yoon bari na ñoo xamante ne nii dañu doon ŋàññ boobu lay yorin bu ñu yor kër googu xamante ma tegul woon ci xaranteefu ña ngi ñuy jël waaye rek mu sa waay jël sa waayu waay loolu moom moo waral ba mu bari loolu ay liggéeykat yoo xamante ne daanaka ña nga ca kër ga waaye defuñu dara te teewul ñu ngi leen di fay lu bari ci ay liggéeykatu groupe Futurs Médias ñu ngi leen di fay xaalis bu bari te daanaka sax mën nañu wax ne amul liggéey bu am solo boo xamante ña ngi koy amal ca kër ga ci fan yi sax mën nañu wax ne teewaayu Pape Ngagne Ndiaye ak nga xamante ne moom mooy Lamine Samba jógee ko ca TFM ñëw ci RFM du guleet ndax dafa bokk ci doxalin bu yees boo xamante ne nar nañ ko indi foofu la ca groupe Futur Média dalee ko ci tay ñoom ñaari journaliste yooyu dinañu wéy di def ay jaabante ci diggante RFM ak TFM ñëwup wopp doomu jàngoro bi di coronavirus dafa yokk ay jafe-jafe ci këru liggéeyukaay yu bari fii ci biir réew mi te groupe Futur Média muccul ci mbir mi na am sax bokk na ci këru liggéeyukaay yi nga xamante ne nii ñoom la mbir mi gën a sonal a néew te la ñuy fayee seeni liggéeykat ya ëpp loxo lool mu mel ni ni entreprise yépp di dundee métit bi ci wàllum covid 19 bi moom la rajo groupe Futur Média itam di dund jamono ji mën nañu wax ne benn dong ci ay ya banqaasam moom la ñu wax ne mooy dox te mucc ci jafe-jafe koom-koom muy seen journal quotidien bi di l'observateur lii la leen Tactic TV indi loonu ci xibaar ñu ngi leen di jaajëfal te leen dig daje ci lu yàggu dara jërë ngeen